ñoo ngi amaan mbégte toog fii ci kanam sëriñ ahmadul muxtaar xalifatu cheikh mahamadul moustapha awalu xalifatu cheikh ahmadul xadim ci ndigalul sëriñ abibu mbake njiitul daayira nooru daaray ni tubaa ci kanam gis ngeen ne sëriñ mouhamadul montaxa jox na ndigal tubaa ci kanam ngir waajtaayu màggalu tubaa gi ñu mën a taxaw ci mbeddi tubaa yi diggante taataa yi ak tëli yu yi nu mën koo defaraat ba mbedd yëpp sekkar ci ko am aw yoon tokkar bi nga xamante ne bii mbedd moomu dafa sakkoon naka jekk mu ne nañ fexe ba xëttale assainissement bi boo fu ne mu man faa àgg loolu nag moo tax na tey jii ñu teew ci kanam sëriñ Ahmadul Muxtaar mu fas yéene yëkkati ay kàddu yu soññee jëmee ko ci mboolem taalibi yi ngir ñu mën a taxaw ci Touba ci kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa nga jottali ma sama nuyoo ci sëñ Abibu Mbàkke di président Touba ci kanam la wax ne Touba ci kanam soxal na ma soxal na it yaakaar naa murid yëpp ndax liñ li ñuy wane li ñu jëfagun ak li ñu yéene jëf wane na loolu bañ koy sasit ñëw nañ ci man tàggu ma am ci mbégte xam ne noonu lañ koy defal na murid yëpp lañ koy defal ndax Touba mooy dëkk bi nga xam ne moom gën a ñor ci Sénégal gépp kon nag maa ngi soññi taalib bi di soññi bokk yi jàpp gën ci jàppaat te lépp lu waaye man mu def ko ci te xam ne sëñ Tuubaa nga koy defal ndax sëñ Tuubaa mooy Tuubaa mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom la gën a fonk ci dëkk yi moo ko sanc ngir jaamu yàlla ak liggéey bu toll yi mu toll te biñ ko sanceeg léegi loolu moo tax mu toll mu toll kon noonu ñi fi dëkk ci biir lu ko defar seetal ko di daal yi fi daara yëpp ñu ñu gën cee góorgóorlu Touba kanam ci ci kanam ci leer day yi bi digle woon la muy jàng ak jàngale nekkal muy dëkkub lislaam boo xam ne fi ñoo xam ne lii dëkkub lislaam la looloo tax ñu sanc ko kon ñun ñëpp waroon ci góorgóorlu jërë ngeen jëf.